stade bii ñuy lancé tey du moom rek la ñu war a defar am na yeneen ñaar fukki milliards yoo xamante ne dañu koy def ci Ely Manel bu Diourbel boole ci Ely Manel Fall comme ni ma ko waxee bu Diourbel boole ci Lamine Gueye de Kaolack ak Alioune Cité Diatta bu Ziguinchor stade bii nga xamante moom la ñuy defar waxtu wu ñu ci pare dana baax ci li ñu jëm muy organisation des Jeux olympiques la jeunesse kon li ñu fi tënk yëpp mooy li ñu manqué woon ñun sportif yi le monde sportif président Macky Sall mu ñuy trouver ay solution mooy déglu sportif yi def ci koppar investir ci investir ci li nga xamante ne moom mooy infrastructure sportive lii nag day wone lëkkaloo bi Sénégal lëkkaloo ak République populaire de Chine njiitu République populaire de Chine Xi Jinping ànd ci ak son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal ba tax ba ñu pare ci arène nationale tey ñu ngi fii ci Patte d'Oie fi nga xamante ne mooy fii stade Léopold Senghor nekk kon dañuy jox diir rek pour mën a dellu si fii bu soobee yàlla ci présence président Macky Sall pour réceptionner li nga xamante moom la ñu commencé muy nekk bénéfice sportif bu Sénégal yëpp kon tey bés bu mag la ñu ci sant ambassadeur bi ci sant ñi fi teew yëpp di wax ne lii mooy jéego yi nga xamante ne bu ñu ko defee sport bu Sénégal dana gën a jëm kanam kon ñu ngi leen di sant di leen